ñoo ngi leen di ñun nag ñoo ngi ñaawlu li am fii ci marché Ocass dañ koy ñaaw maanaam buñ ko ñaaw lu rek du ay junni du ay borom parce que lu dolloog ay junniy personne yoo xam ne fii la ñuy nit ki boo koy yàqal sax da nga ko nekk dem ñëwal nga jël sa bagage waaye dañoo ñëw rek dal ci kaw nit ñi rajo xel lépp yàq lépp lii du ndigal ndigal ndigal moo xam nga dégg xam nga nee nan waaru suba dañoo réew waaru suba nangam fii ñii liggéey di joxe ak li fi nekk dàq leen a joxe ci kër sëñ bi gën leen a dàq leen a jëfi ndigal gis nga ne nii liñ liñ liñ yaakaaroon ak jëflante ko ak ñun ñun duñ duñ fi ne di xeex duñ fi ne di xuloo ndigalul sëñ bi rek waaye waroon na noo mën a jug nañu nangam ñun ñu jël suñu bagage ñëw rek yor seen i lii di dóor loolu bu dul woon a ndigal dana demee naneen dana demee naneen wallaahi asim parce que lii dafa métti Touba amul usine amul dara Touba ñaara fi am képp ku jige daara ja sareet ngay dawali wala nga ñëw ci marché bi ak ku mën di doon amul usine amul dara kon léegi marché la nam marché la nam léegi bu ñu fi jëlee marché bi nii lu tolloog junniy personne ñu yàqal leen ci 30 minutes 30 minutes ah nga yàqal leen léegi fan lañ jëm léegi xanaa loolu mooy damay toroxal ndaw yi Touba yi loolu mooy lan lii mooy lan ah am na ñoo xam ne dañoo lakkale barki démb amatul place kenn dimbaliwu leen ah li am nañ koy wax dëgg dëgg dëgg li am nañ koy wax dëgg dëgg dëgg dañoo war a jàppale ndaw yi Touba ñooy liggéey di joxe addiya ci dëkk bi fu sëñ bi wootee ñoom lañ njëkk a gis waaye gis nga lii lii lii daa mel ne dañ toroxal parce que tey jii képp ku xëy si amoo loo def da ngay ñëw taxaw da taxaw wallaahi lancim am na ñoo xam ne maanaam maanaam sëkk di jooy sax gis naa ñu def lii dafa métti dafa métti lii dafa métti torop ñun nag dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu ni ñu ko yàqee nii ndigalu sëñ bi moom jëfee waaye ni ñu ko yàqee nii dañ koy ñaawlu parce que ñoom ànd ñu kenn ku leen jiitu dañoo tourné rek doon seen ful yor seen bant di dóor te buñ jëflante woon ñoo day doon na neen waaye tamit ñun dañ ne ndigal dañuy toog rek buñ ko doon yàq ñun ba ñuy juddu andiwun dara buñ ko doon bu ñu yàqul lépp ba amultun dara dañu dañ dañuy dem defi nan defoon parce que yàlla jeexul yàlla ngi fépp waaye lii dañ koy ñaaw en tant que ñu dëkk ci biir Touba ñu def leen nii wallaay naa sim lu ñaaw la wallaay naa sim asalaamaaleykum maa ngi ci ci ci poste bi taal nañ sama oto bi ma xam ne dañ ma ko tuumaal ñu ngi nii na ma lu ne léegi ñëpp a fi ñu ne dañ may rey taal nañ sama oto bi ma yoroon.